léegi nag ma ñëw ci Tafatine ak Balla. Mhm. Tafatine ak Balla. Mhm. yaakaar naa ni mu taxaw itam coow li bëri na. Mhm. signature yi jàppal bàyyi la. mais nag bu ñu ba ca bésu combat ba. ah ñu bëri yàlla ma may Balla ndam ñu koy félicité. di leen félicité. mais ñu bëri tamit foofu jàpp nañ ne. Eh, da ngeen a togg benn togg ba mu ñor rek. Mhm. ngeen ñëw yàkkal ko seen bopp daal. Mhm. Eh, waaw am na ñu jàpp ne daal Tapha moom. Mhm. Eh, waaw ni ngeen doxaleeg moom ci combat bi am na ñu gisee noo jàpp ne des koo sot. am na ñoo xam ne gisuñu loolu contraire bi la gis. mais yow loo ci mën a leeral Sénégal yi. léegi man li ma lay njëkk tontu rek mooy. kañ nga ñu xam ak Balla Gaye. kañ ngeen xamante ak Balla Gaye. yow kañ nga ñu xam suñu ànd ak. Balla ah? jiitu na combat bi. ba ko seen combat bu njëkk. Mm-hmm. ñun ak moom. ñoo nekk. Mm-hmm. kon Tapha bi muy jël komba bi. Mm-hmm. xam na ñi ko tëgg. xam na ñooñu lan Balla gay lañ. ay mbokkam waxi nopp. Tapha ñëwuñu proposé ko combat bi rek mu jël ko. biñ ñëwee waxtaan ak moom dañuy damay dem waxtaan ak samay mbokk ba noppi. bi mu waxtaanee ak ay mbokkam ba pare. mu ñëw ñu xool ñu ni baax na jël nañ dañuy jël komba bi. boo seetloo am na benn euh, émission bu. mu defoon TFM. Mm-hmm. bu waayam ji ñëwee ni papaam nee na. Mm-hmm. ngeen may ma mu waxtaan ak ñi mu war a waxtaan. Mm-hmm. papaam xam na ñu la ñëpp Balla Gaye ñoo ànd. yonent bi sallallahu alayhi wa sax. bi muy woote lislaam am na ñoo xam ni nanguwuñu woon. dañoo bañoon. loolu yàgg na Sénégal. loolu yàgg na ci àdduna sax du ma ne yàgg na fi. Tapha dañ ko fay fay Balla ku ne ànd ak say mbokk Aziz bu deful lool Balla Gaye ku mu koy defal ku jël léppam jox la ni yaay baayam yaay léppam yaay waxaale ay kombaam yaay def lépp mais Aziz tëggul woon combat bi Baye moo tëggoon combat bi Aziz am na plein droit ànd ak Balla te Aziz lu mu nekk ay mbokkam dañ ciy nekk bu dee mbokk yu baax ndax diw baax na ñu ndax mbokk yu baax yaa ko wax ndax mbokk mu bon du la waxal lu baax du la defal lu baax Aziz nag bi mbir mi taxawee dafa ànd ak ay mbokkam yu baax combat bi. nekk ci combat bi mais par rapport ak euh, ci biir combat bi bu ñu ñëwee ci géew ba. Mhm. parce que gis nañ Aziz. Mhm. ñëw na ci Balla. Mhm. bàyyi benn moment yi sax jóg na ñëw. même yow gis nañ ne ya ya gàllaaj yi mujj yaa ko defal Balla Gaye numéro bi. loolu tamit est-ce que du image yooyu la nit ñi gis moo tax ñu jàpp ne lii est-ce que ëppul ëppul en tant que promoteur ak grand frère promoteur bi ak yooyu est-ce que loolu tax nit ñi waxee noonu. man tëgguma combat. waaw Aziz tëggul combat. waaw. Balla Gaye bu ñu geesoo gisuñu ko suñu wet dinañu kaskia Balla bu doon bëree tey. gisuñu ci famille Aala Ndiaye. dinañ wax lu xew. dëgg la wala dëgg. kon Balla suñ suñu gisee ci wetam mais c'est normal Tapha moo la gënoon a xam loolu. waa kër Balla ñoo la gënoon a xam loolu. Balla nag suñu Balla la. Aziz suma Aziz la. man du benn mbër moo may jaral may wàcc ci géew ku dul Aziz Ndiaye moo ma ko jaral. Aziz sa tax ma def loolu ndax bëgguma gàccam te du ma fekk fu gàccaam di amee du Balla gay du keneen na ma ko jaral ak su may sonn ci Balla asi sa tax man xooluma Balla xooluma ma paate xooluma ma Demba Aziz lu mu nekk suba ba ngoon maa ngi ci. loolu moo moo waral sama teewaay ci làmb ci waaw ndax bugguma defe tam mhm. ñi wax ne mbër bi dañ ko jàpp ci gàllaaj am nañu gis noonu am nañu mhm. yow en tant ñu bëree keroog boo seetloo làmb ji bi mu commencé su ma juumul Tapha moo njëkk a dox ci kaw Balla yi bi mu jàppee ñu jàppante Tapha Tine dóor na ñaari hypercule mhm. mais dafa moy Balla dalu ko c'est que da mbir nit bu la jiitoo ci sa manin mën na laa yàqal lu bari même ba ci football da gis ñaari équipe bu équipe bi ñëwee sorxo sorxo benn équipe bi jiitu ko ci maninam dugal ko équipe bële pour mu ñëwaat day doom problème mën na fay nekk di daw ba temps ba jeex ñu gañe ko noonu moo demee kon Balla Gaye ak Tapha Tine man gisuma fa mystique parce que ñoom ñëpp doon sotteeku ndax tafaatin gisuma ko mu ñëw toog sotteekuwul benn biteel gisuma ko mu ñëw toog ay mbokkam defaluñ ko tafaatin defal nañ ko Balla Gaye defal nañ ko autoroute à péage bi di nga yor sa Mercedes bu rafet jaar fa di daw ab 406 jaar fa romb la te oto yi bokkuñu njëkk loolu lu ko waral ci chauffeur sa làmb ji noonu la nag noonu la demee man man gisuma fa gàllaaj kon su ma la déggee Balla dafa jiitu tafaatin ci maninam. du koo jiitu ci maninam ba pare xam ko. xam ko waaw. xam gi loo tudde xam ko. xam ko mooy xam li tafaan li mu bëgg ak li muy bañ. ah Balla daa xam li tafaan bëgg ak li ciy bañ. ak li di ko ci jiitu. loolu kes la mais man gisuma fa jàpp gàllaaj bu ñuy wax cent pour cent gis yi nag mën naa wuute. nit mën ngaa gisee nii sa morom gisee nii parce que xela xel yëpp mënuñoo bokk doon maase doon benn ndax xel bu doon jaay lamb ndax ku ne yaakaar nga sa besa la doy waaw ok euh, kon avant combat ñi nga doon dégg ñu naan damaa tafa da ko ragal ak yooyu doon tamit yaakaar naa non tafa nan lay toll ni mu war a toll macha allah bu ragalam baal du jël avance am c'est que communication dafa am rek stratégie la rek ku ne morom ak noo piège sa morom mais tafaatin koo xool xam ni bu ragalee Balla li mu wax mu dem bay ji reefaan moom wax na ko ne su ma toogee bay ragal Balla ma tekki sama ngeem dem bay Tapha Tine ragalul Balla wax waxoon dëgg Sénégal moo mel noonu Sénégal tey jii Balla li mu bëree ak li mu entraîné daj ko ci coona daj ko ci musculation tey jii bu yàlla defoon safaan am mu daanu nit ñi dañ naan Balla ba léegi nekkatu fi dañ naan ba léegi Balla mi jeexal na Balla nekkatu fi dajul dara ci entraînement kii da doon nax nit ñi mais li Balla def tax na ñëpp a ngi naan Balla ñëwaat na Balla ma ñu xamoon moo ñëwaat mais tey bu daan woon du dégg loolu. waaw bu daan woon du dégg loolu Sénégal moom moo mel noonu ñoom ñoo baaxoon noonu Sénégal dund fi yombul waxe fi yombul hmm. waaw yàllaa lay suturaal rek. am na ba tey ñu jàpp ne. da ngeen euh, ba nañ ne empereur bi ngeen ko ngeen ko defaree. Mhm. Balla moo taxoon ngeen defar ko. Mhm. ak yu mel ni ki noonu. Mhm. ñooñu tamit euh, boo mais est-ce que ñun xam nañ liy xew suba. kese yàlla rek moo xam liy xew suba. empereur bi Balla bu ñu xamoon ni Balla day daan tafaatin mm. kon mën nañ cee gën a yokk sax lu ëpp loolu mais ñun xamuñu liy xew suba. Aziz dafa ñëw rek teg empereur nee naa la marketing la woon pour lu jaay combat bi moom moo waral loolu mu ne dina xool benn initiative indi fi benn affaire boo xam loo xam ne musta am ci làmb pour dimbali mbër yi dong la parce que boo xoolee lii mbër yi avantage wu nañ ci ban mbër nga daan toog fii bëree ba pare daanu ñu lay fay sax weer cinq cent mille francs daanu nga am cinq cent mille pendant six mois mais loolu am na lu mu faj ak ah, boole koog ravitaillement maa loolu lépp mais loolu la jiblu woon rek pour indi sponsor yi. delloosiwaat leen ci làmb ji te loolu lépp làmb boo xoolee moo ciy jaruñuwaat. mais du promoteur bi moo ciy jaruñu. parce que un million yi defuñu ko ci poche promoteur bi un million cinq cent yi ci fan lañ ko def ci poche mbër mi. kon nga xam ni moom marketing rek moom moo ko jubaloon ak loo nga xam ni sponsor yi tamit dinañ am loo xam ni dinañ wóor ni fii ñuy dugal seen xaalis lii jar na ko. dugal. waaw jar na ko mais tafaatin bu amoon tey loo xam ne loo koy wax la. Mhm. lan lay doon parce que ku ne xam ne toog na lu mat fukki at jaaxal na daanu. Mhm. parce que 2013 la mu jël daan sonn ca Ama. Mhm. ba tey daanu waatul. ba bëri ci dem bi ko Balla daane. ñu a amoon loo koy wax Tapha en tant que champion bi mu doon. ak itam ni mu gàddoo turu Bawol. ak niveau bi mu ko yóbbu tey loo koy wax. Tapha daal su ma amee lu ma koy wax di ko conseiller mooy bu mu décourager bëre ak daanu ñoo ànd daanu ba mu daanu woon ca Ama Baldé moo ko def lii mu nekk ba fi mu si fii tey daanu bii ko Balla gay def mën na ko def ba mu nekk roi des arènes ëllëg ndax am na loo xam saa yu jugee da ngay jàngat mais ab jullit du décourager yàlla ay nattoom ak i ndogalam ci ku ku mu bëgg la koy teg xay na bu daanoon Balla Gaye mën na am du ko jig lii la yàlla dogal na ko nangu te continuer liggéeyam te xam ni mbër la te mbër lay musa doon làmb ji kenn mënu ko fii kenn ëpp ko ci doole kenn ëpp ko ci fit yàlla nag moo ñëw ak ay dogalam dafa maa moom xamante nañ bu baax mooy suma xarit di suma wëllëre su déggee lii may wax xam na ko néew na lu muy bëre te teguma ci sama loxo moom Tapha mi ngi may dégg maa ngi koy dégg néew na lu muy bëree mm-hmm. te teguma ci suma loxo mm-hmm. ndax suma xarit la xam na li may wax mm-hmm. mais nag gën a jege gën a yey deret bu soxlaa ku soxla ñàkk loolu moo waral li ma def ma def ko mais nag góorgóorlu te xam ni am na place ci làmb ci bu ñuy wax bawal tey c'est grace à Tapha Tine yàgg naa am mbër mais kenn déggu leen woon tey bu ñuy coow Bawol di wax ni c'est grâce à Tapha kon bu mu découragé nañ ko gars yi encouragé te félicité ko te xam ne làmb la woon mënul génn Sénégal waaw. comportement Tapha. vraiment comportement gentleman la comporté wu. waaw seetaan naa ko ci seen dernier face à face xool naa ko ci làmb ji. mais vraiment da ngay xam ni kii ndaanaan la. waaw nit ku ànd ak dal la te xam na lu bari. bu te nit ku yaru dafa nit ku yaru la maa ngi koy ñaanal daal gudd fan ak wér bu amaatee beneen combat yàlla na ko ci yàlla may ndam. parce que li ma laaj loolu dama gis wax Balla lay mhm. boo xam ne mais ba tey benn mais wax na dëgg parce que Balla lay bëreel. Mhm. bëreelul ak Aziz. Ah, bëreelul ak Aziz bëreelul ak keneen ak keneen. bu arbitre bi siflee ñoom ñaar dong ñooy nekk ci géew bi. kon loo ciy dugal keneen koo xam bokkul moom wax na dëgg Balla lay bëril bëril loo ko Aziz bëril loo keneen ak keneen waaw bàyyi ko tëgg moo ko ëmma combat bu njëkk ba Aziz moo ko tëggoon combat bu mujj bàyyi moo ko tëggaat mm-hmm. xam nga te ñoom ñëpp xamoon nañu moo ko ak ni mu demee ak kii Baye moo daan indi Balla gay mm-hmm. moo ko daan ànd ak moom mais Baye defu ci dara dafa taxaw neutre mm-hmm. parce xam ne moom mooy promoteur bi Aziz du promoteur Aziz agent Balla gay la am na droit fu am na droit fu Aziz nekk mu nekk fa mhm. fu Balla Gaye mhm. jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu maa dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te baree bari nay baree bari te baree bari ndaanaan laa ñaari yoon